Assane nag bi mu eggee seen dëkk bu mu indi xale bu jigéen bu rafet bii bu mu may ko seexam bii di Ousseynou ba ñoom ñaar ñu daldi takkandoo ay jabar ñu daldi def xew bu mag ñu toog luy mot weer di def xew seen dëkk bi daldi neexaat dëkk bi yépp kontaan ñoom ñaar nag ñu dellu mel comme nu ñu meloon guddi ba guddi lañuy tàkkaloo ci la ku ci ne ci ñoom waatal keneen ki ne bu sooba yàlla duma la musa baay te duma la musati defat lu la metti ci noonu nag bi weer bi jàlle Ousseynou bu baax bi ko dalaloon ci dëkkam benn bés mu daldi woo benn jaamam mu daldi koy yónni ca kër buur jaam bi nag bi mu eggee ba wax buur li ko Ousseynou yónni ci la ko buur bi laajee nu Ousseynou def ci la ko jaam bi tontoo ne ko man kay nit bu baaxee ni Ousseynou musuma ko gis buur bi ne ko lu tax nga waxaat loolu lan la Ousseynou defaat mu ne dafa baax ba nga xam ne dafa jël ki nga xam ne moo waroon nekk jabaram mu daal di koy may nit ki nga xam ne xamul sa fu jóge bi mu waxee loolu nag réaction buur bi daldi koy bett loolu buur bi ne ko looy wax ni ci la jaam bi nettalee li Ousseynou def ak xale bu jigéen bu mu jël jox ko Assane buur bi nag bi mu déggee loolu ci la yuuxu daldi di daanu jaam bi daldi tiit ñi doon liggéey ci pale bi yépp daldi di ñëw ci la féticheur bi tamit dawee daldi di ñëw ñu daldi di lu xew jaam bi wax leen ke man laa wax buur waaye bi ma ko waxee ci la yuuxu mu daldi di daanu bi mu waxee loolu nag féticheur bi daldi xool buur mu gis ko mu ngi tëdd daldi xëm moom it foofu ak tiitaange ak mer ak betteel bi mu am ci la soppalikoo mu daldi di jëlaat jëmmam féticheur bi te jëmmam boobu bu ko jëlee xolam féticheur bi mooy daldi di ñëwaat ci la gaawantoo mu daldi dem dugg ci néegam mu xool bërëb bi nga xam ne mooy bërëb bu gën bon ci àdduna bi ci la génnee mu woolu ma téeméeri soldaat mu ne dem leen léegi kër Ousseynou ngeen indil ma ko fi ci la soldaat yi daal di demee kër Ousseynou ñu daldi koy indi bi ñu undee Ousseynou féticheur bi daal di koy ne xamal ni tey ni ki bés tey sa jàmm jeex na ci àdduna bi dama lay yóbbu benn prison bi nga xam ne balaa nga fay egg dina mot une ci àll bi ngay jaar suuf rekk ak naaj moo fa nekk doo lekk doo naan te prison boobu moom mooy prison bu gën a bon ci àdduna bi balaa Ousseynou di ko tontu ci la waxee soldaat yi takk leen ko ci benn fas fas bi di ko diri dama bëgg ngeen yóbbu ko waaye bëgguma ngeen teg ko ci fas bi fas bi na ko diri ba ba ngeen di egg fi ngeen jëm ci la soldaat yi daal di waree seeni fas ñu jël Ousseynou daal di ko takk ci benn fas di ko diri ñuy dem fas bi di daw di diri Ousseynou xeer yi di ko jam xottu butel yi yoon bi muy dem tànkam yi di nàcc bi ñu demee ba egg ci àll bi mu nekk àll bu tàng jër bi nga xam ne ay xeer kese ñoo fa nekk ba ñu romb benn xeer bu rëy fas bi nu mu doon dawee ak daw bu foor ci la genn wàlla tànku Ousseynou daldi dagge daret bi di sotteeku Ousseynou di yuuxu tànkam yaa ngi nàcc yéreem yi dagg na sonn na xiif na mar na mu ngeeg metit muy woo soldaat yi mu leen di ne dimbale leen ma sama tànk bi dagg na sama genn wàlla tànk des na ci yoon bi waaye ñooñu faale wuñ ko noonu lañu nekk di ko dire di ko diri moom nag ak metit bi mu nekkaloon ak daretam bi nu mu doon sotteekoo ci la xëme ba yàlla def semaine bi daal di jàll ci biir semaine boobu nag yàlla def moom ni mu xëmee woon mu tawte naaj dal leen fa lu ne dal ko fa lu metti ndem am na sa ay mala yi nga xam ne dañ doon màtt yaramam bi ci yoon bi te yëgu ko moom dafa jékki-jékki rek mu daldi di yeewu mu gis ka yaramam bi mu ngi neewi yéreem yaa ngi kole ci yaramam bi ndax deret bi dafa tuuru ba kole yéreem ci yaramam bi yaramam baa ngi daggatoo mu ngi ame mettit fu ne bu laalee yaram bi day mel ni que da nga jël paaka jam la ko Ousseynou daal daldi xool mu gis mu ngi nekk ci benn néeg bu ndaw néeg boobu moom tàllal tànkam sa munu ko def mu xool mu gis ne que fenêtre am fa benn bën bën bu ndaw moo fa am boobu moo koy war nekk bëccëg la ci la jékki-jékkee dégg baat bu wax ak moom en ah, yeewu nga bi baat bi waxee loolu Ousseynou daldi ne yeewu naa dama mar ci la déggee bunt buy ubbeeku buntu ubbeeku mu defe ne woon buntam la mu gis ko buntam bi ubbeeku muy déglu buntu di ubbeeku di ubbeeku ba mu nekk juróom ñaari yoon ndekete moom cellule bi mu nekk juróom ñaari bunt ñoo koy tëj la benn soldaat bu tiit lu daldi ñëwee ci kanamam yore ab bool bu ndaw lu mel ni mbaxalu ñànkatang nekk ci kooku daldi koy tegal ci kanamam ne ko xamal lii boo ko lekkee ñetti fan doo lekkat mu ne ko lii liitaru ndox la liitaru ndox bi xamal ne ñetti fan nga koy naan soo ko naanee yépp tey bu subaak gannaaw suba doo am loo naan xamal ne buntu bi ñetti yoon laa koy ubbi ci bës bi waaye su ma ko ubbee du pour lekk du pour naan dangay saw boo sawee ba pare dañu lay dóor te xamal ne fiil yiñ lay dóor ci sa biir yaram lay nekk ndax dañoo mel ni ñoo gën a ñaw paaka bi mu waxee loolu Ousseynou Ousseynou foofu ak métit bi mu nekkeel munu ko sa tontu mu ngi onk bi nit kooku waxee loolu daldi tëjaat bunt bi tëjaat caabi ba muy nekk juróom ñaari yoon daldi di dem yoonam Ousseynou nag foofu ak xiif bi mu xiif mu gaawantu jëm ca bool ba mu daldi lekk moom nag ni mu doon lekkee mu jékki-jékki toxoñu bëtam bi bi mu paree loxo mi am ñam mu daldi xool ndox mi mu ne ndox mi duma ko raxasee sama loxo yi ndax kat suma ko raxasee kii nee na ma benn liitar rek laa am pour ñetti fan xanaa ma gën a sama loxo yi mu daal di marat lohomi. yi foofu mu bëgg a toog ndax yaram bi yëpp a ngi yaram bi yëpp a ngi neewi yaram bi yëpp a ngi dagg mënul toog mu xool tànkam bi ndekete genn wàlla tànkam bi daal dina dagg ci yoon bi dem foofu Ousseynou jaaxle na xamatul nu muy def mu ngeeg metit fi muy waxee noonu moom ak coono bi mu nekkee woon ni mu taxawee noonu wéeru ci miir bi ndekete commencé na nelaw waaye dafa jékki-jékki rekk ci suufu bëtam bi dara lu mel ni xal daal di ko fay jam rekk mu yuux ndekete moom nu mu toxoñoo woon loxoom bi ñam dafa desoon ci wetu bët bi ndekete prison bi ay jinax ñoo fa nekk ba mu fees jinax bi ci wetu bëtam bi la ñëwoon di lekk ñam bi ba lekkaale yaram bi nekk ci bëtam bi Ousseynou xool gis wetu bëtam bi di nàcc Ousseynou nag bu mu gisee darat boobu nu mu doon sotteekoo foofu mu tiit metit bi bari na ci moom mu daldi di yuuxu ba yépp riir ci la déggaate soldaat boobu daldi koy ne bés bu ma sabaat xamal ne bi yoon ab dee moo ciy tegu Ousseynou bëgg na muñ mu nekk di onk mu ngeeg metit xamatul nu muy def bala muy pare mu jékki-jékkaat beneen métit bu gëna a metti jamaat ko ci tànkam bu dagg bi ndekete beneen jinax moo nekkaat di màttaat tànkam bi nga xam ne moo dagg Ousseynou foofu mënatul muñ mu daal di yuuxuwaat ba prison bi yëpp réer ci la déggee buntu yi di ubbeeku ba buntu bu mujj bi daal ubbeeku bi buntu boobu ubbeekoo moom lu mu gis rekk que benn xiir bu mag lañu jël dóor ko ko kooku bum ko ko dóoree dafay mel ni ku baxal liitaru ndox daldi ko koy sotti ndax metit bi xiir bi metti yaramam bi yépp di nàcc Ousseynou foofu metit bi metti na ba nga xam ne mënatu ko muñ ci la daan waatee mu daldi xam bi mu xamali ko mu daldi gis que mu ngi nekk ci beneen cellule waaye foofu mu xool ne mës mën na tàllal tànkam waaye mu xool ci ndeyjooram mu daldi gis benn nit tëdd fa Ousseynou daal daldi nee ci xelam ah fii de dafa mel ni moo tane fi ma nekkoon fii mën naa tàllal samay tànk te maa ngi nekk ak ab nit muy xalaatee loolu ci la déggaatee baat bi daal di koy ne ah yeew nga xamal ne nit kooku nekk sa wet rey na téeméeri nit tey ci suba la mujj rey kenn bépp prisonnier buñ ko booleel su yeewoo cinq secondes lay def mu rey ko yow xamal ne tey mooy sa bés bu mujj su fekkee am na looy ñaan ñaan ko balaa ngay dee baat bi daal di reetaan dem yoonam Ousseynou foofu tiit na mu ngi onk mu ngi lox fitam bi di tëb ba ba mu saw ci tubayam Ousseynou xamatul nu muy def mu bëgg toog tànkam bi mu ngi dagg di sotteeku dareet beneen tànkam baa ngi metti yaramam bi yépp ngi metti waaye fu muy dugg toogee mu jékki-jékki dégg ndox muy sotteeku mu xool mu gis ka fi ñu nekk mu ngi senn ndek dafa nekk di taw ci noonu ndox mi di sotteeku ci Ousseynou moom nag ak dagg-dagg yi mu nekkal dafa mel ni ab alcool lañuy jël di ko sotti ci góomam yi Ousseynou bëgg na yuuxu waaye foofu mu fàttaliku li ko soldaat bi wax kooku tëdd foofu saa yu yeewoo xamal ne ka dalay rey Ousseynou tiit gën a tiit nekk di lox waaye ci noonu mu xool ci beneen boor bi nit ki tëdd mu gis ka ndox mi mu ngi bëgg senn di jëm ci nit kooku te kooku mu ngi tëdd Ousseynou daldi raam jëm ca nit ka jël ñaari loxoom yi dékk ko ci ndox moomu nekk di tuur ndox mi ci la Ousseynou summee yéreem bu mu soloon mu daldi koy dagg ci digg bi daal koy muur nit kooku pour que ndox mi bañ a dal ci kawam mu daldi xool ci wetu nit kooku tamit mu gis benn bën bën mu ngi am foofu ndox baa ngi jaar foofu te ndox mi mu ngi bëgg egg ci nit kooku mu jël genn wàll yéreem bi desoon mu daldi koy kalee ndox mi Ousseynou fu muy kalee ndox mi noonu mu jékki-jékki dégg luy riir mu mel ni am na lu koy raay ci tànkam yi mu daldi gees mu gis luy mot fukki jinax yu dijji di dugg ci néeg bi Ousseynou daldi leen fi bi muy fi jinax yi mu xool ndekete jinax yi ci nit kooku tëdd lañu jëm kooku ndekete loxoom yi ni mu lekkee woon ñam dëkk ci des benn jinax bi jëm ca nit ka fu muy jë bëgg xàmpee nit ka Ousseynou daal di xëcc jinax bi jinax bi daal di xàmp benn baaraamu Ousseynou baaraam bi ci saasi mu daal di dagg dareetu Ousseynou bi di sotteeku foofu mu ngeeg mettit waaye ñemewul yuuxu ndax nit kooku tëdd xam na luñ ko ci wax mu ngi lox waaye tamit balaa muy pare di xool baaraamam boobu mu gis beneen jinax jëmaat ci nit kooku di bëgga a demaat ci loxoy kooku di ko bëgg a mat Ousseynou daal di jëlaat loxoom tegaat ko foofu jinax bi màttaat beneen baaraamam ci noonu tamit mu séenaat beneen jinax jëmaat ca kaw nit ka ca wetu bët kooku Ousseynou daal di jëlaat loxoom xalee ko jinax bi jinax boobu màttaat beneen baaraam ba ñetti baaraamam yépp nekk di nàcc balaa Ousseynou di pare mu gisaat ci beneen loxo bi nekk ci nit ki yeneen ñaari jinax ñu ngi jëm foofu mu jëlaat loxoom xalee ko foofu jinax yi daldi màttaat loxoom yi ñaari baaraamu beneen loxoom bi di nàcc Ousseynou nekk ak noonu ak jinax yi ak nit kooku ba ñu màtt baaraamam yépp ñaari loxoom yépp di sotteeku dareet fu mu toll noonu loxoom yi mënatu leen sa tàllal ci la séenee benn jinax bu maga maga mag a ca wetu gémminu nit kooku tëdd Ousseynou jaal di jël tànkam bi des ndax beneen tànkam baa ngi dagg mu kalee ko jinax boobu jinax boobu matt tànkam bi ci la Ousseynou nag yuuxoo ndax foofu metit bi bari na ci la nit kooku daal di tëbee yeew foofu moom Ousseynou mënatul sa nooyi fitam bi rekk moo doon tëb kooku daal di koy ne noo tudd Ousseynou daal di koy ne man Ousseynou laa tudd kooku daal di ree Ousseynou daal di jaaxle mu ne ko man bi ma juddoo ba tey kenn musuma toppatoo yow yaay nit bu ma musa toppatoo bi ma juddoo ba tey ndax kat bi nga duggee ci néeg bi man dama rey tey ci suba ab benn xale dañ ma dóor ba sama yaram bi yépp di metti dama tayaloon waaye nelaw ma woon li nga doon def yépp maa ngi la doon xool gis naa ni nga teggee sa yére nga jël teg ko sama kaw ndax bañ ndox mi tooyal gis naa ni nga jëlaatee sa yére nga def ko ci bën bën bi ndax ndox mi bañ ma dal gis naa ni nga nekkee di xeex ak jinax yi ba ñu lekk sa ñaari loxo yi ba mu jëntal bi sa benn tànk bi la teet si nga jël teg ko sama kaw mu ne ko waaye yow xanaa xamoo ne que man maay nit ku gën a bon bu nekk ci àdduna bi bépp prisonnier buñ ma boole woon juróomi seconde lay def ak man ma rey ko waaye yow balaa ma lay rey damay dama lay nettali lii ba pare ma doog la rey ci la prisonnier bi daldi di nettali Ousseynou mu ne ko moom bi muy am ñaari weer ci la pàppaam daal di gaañu waaye balaa loolu pàppaam dafa nekkoon nit ku baax nit ku bari alal bu doon dimbale ay nit pàppaam alal bi mu amoon këram luy mot fukki mbana lañ doon togg mbana yooyu da ko doon yóbbul ci nit ñu amul lu ñu lekk ci gan yi doon ñëw yi ci ñin ñu feebar ñi papaam ci dimbali ay nit rekk la doon def ba nga xam ne dëkk yépp képp ku ci amoon problème képp ku ci doomam feebaroon képp ku ci soxlawoon dara wala képp kuy gan dañ doon ne na dal seen kër yaayam tamit nekk ku baax di dimbale papaam ci li muy def nee na benn bés moom bi muy judd ba muy am ñaari weer ci diggu guddi ay trois heures di matin am ku fëgg ci buntu néegu papaam ak yaayam papaam daal di génn nee mu gis muy seen benn dëkkandoo mu nekk di jooy jooy yu metti papa ji daal di ko laaj lu xew mu ne ko doomam dafa feebar te doomam bi buñ koy faj ci benn dëkk la dëkk boobu nag buñ fay dem lu mu bon bon dina nekk ay juróom-ñetti waxtu te doomam bi su ko fajul luy mot fan dina gaañu te moom jëkkëram dafa gaañu doomam bii rekk la dese te amul lu mu yóbbee doomam amul lum ko faje dafa bëgg ko ko dimbali nee na papa ji ci la ko waxee léegi léegi xaaral ma dem jëli sama fas papa ji daal di jël oor war si fasam jël dëkkandoowum bi ak doomam bi teg leen ci fas bi daal di leen yóbbu ci dëkk boobu ci digg guddi bi nee na ñuy daw luy mot ay juróom benn waxtu ci lañu ñu eggee ci dëkk boobu papa ji bi mu demee mu laaj ñooñu lan lañu ñu war a fajee xale bi ñooñu wax ko ko mu daldi leen jox oor bi mu yore woon ñu ne ko xale bi dina fa nekk semaine pour ñu muñ ko faj papa ji nag bàyyi fa dëkkandoo bi ak doom bi mu daldi waraat ci fasam mu daldi teguwaat ci yoon bi nee na ni mu tegoo ci yoon bi nag di daw moom guddi bi yépp nelawul ak coono bi mu nekkaloon ndekete fas bi nu mu doon dawee ci digg àll bi moom nelaw na mu daldi di bi mu daanoo boppam daldi dal ci benn xeer papa ji daal di fa jaaree daal di bi papa gaañoo nag ñu daal benn nit daldi koy gis daldi ñëw seen kër daal yuuxu ne diw dee na dee na yaay ji moom nu mu juddoo ñaari weer rekk la am ak nu mu nekkee wasin bu bees ak bett bi ko affaire bi bett ak ni mu bëggee woon papa ji neena meretam daal di yéeg yaay ji jaaree fa daal di dof bi yaay ji dofee mujjantal bi yaay ji ci mbedd yi la doon dem di fanaan moom nag noonu la màggee ak yaay ji waaye bi yaay ji dofee nee na moom ba ba muy am at fu muy commencé xàmme fu yaay ji romb xale yi dañuy nekk di ko dóor nit ñi di ko toroxal di ko def lu metti noonu la màggee ak yaay ji nekk di fanaan ci mbedd yi di am lu ko metti ba ba muy am juróom benn at bi mu amee juróom benn at nag benn bés nee na mook yaay ji nuñ doon àndee yaay ji puisque nit wërul mu romb benn pâtisserie kooku di jaay ay gâteau yu neex yaay ji daldi dugg foofu jël benn gato nee na pâtisserie boobu bi mu gisee yaay ji ñëw jël benn gâteau mu jël benn bant bu mu yore woon mu dool ko yaay ji ci bopp yaay ji daldi daanu foofu daal dee moom fekk mu ngi taxaw di xool kooku nee paa bi daldi di ñëw ne borom pâtisserie bi yow kii de fayoo ko lu mu def ndax kat kii li ko dal nii yéena ko ko teg jëkkëram li ko dal nii dul woon na ko yee trois heures du matin pour mu dimbale leen du ko musa dal ñii lu baax lañ lañ leen lebal yéen ngeen fay leen lu bon te dëpp boobu wax naa waa dëkk bi yépp nañu dimbale ndaw si waaye kenn nanguwuma ci dimbale xale bu góor bi nee na paa bi lu mu wax li moom mu jaaxal ko ci la demee mu daldi laaj paa bi kooku lu muy wax loolu nu mu demee ci la ko nettalee papa ji li mu defoon ba mu jaaree fa gaañu ci la yaay ji tamit jaaree ba bopp bi dem nee xool mu gis ji nu mu tëddee ak paa bi lu mu ko nettali ak waajuram yi lu baax liñ doon def nee na foofu mere mu mer mer bi nga xam ne que mer boobu munul nettali mer bi fu ma mën a yem mu ne su sooba yàlla man ñii lu ñu def sama waajur ñii nga xam ne dañ leen lebaloon lu baax ñu fay leen lu bon man dinaa leen def lu bon ba àdduna bu ne àdduna bi yépp yëg ko ci bés boobu la tàmbalee di nekk di rey ay nit ak di def lu bon ci la ko neewoo gis nga tey ci suba lan moo ma indi fii dama doon romb ci dëkk bi ma jékki-jékki dégg benn xale buy xàkkataay ab liir bu am at ma gëstu sama kaw ci benn teraas ma seen benn papa ak yaay yu téye seen doom di xàqataay ak moom ci laa jaaree ci kaw yéeg ci ginnaaw ma nangu doom bi ci yaay bi ma sàndi xale bi ci suuf xale bi bopp bi daal daanu ci benn trottoir xale bi daal di te na loolu moo ma indi pri ci pri indiwaat ci prison bi ci tey xale boobu mooy sama téeméeru nit bi ma rey bi mu waxee loolu ba pare nag u Ousseynou nekk di lox ci nag la ko newee waaye yow danga ma jaaxal ndax man bi ma juddoo ba tey kenn musuma toppatoo dama judd di fanaan ci mbedd yi dama judd ñu may toroxal di toroxal samay waajur benn nit musuma bëgg bi prisonnier bi nettalee Ousseynou lii nag après mu laaj ko yow lu la fi indi ci la ko Ousseynou waxee di ko fa indi bi mu ko ko waxee mu xool mu ne bon yow yaay nit ku gën a baax ci àdduna bi man maay nit ku gën a bon ci àdduna bi ñun ñaar ñoo bokk fu ñu nekk fu mu toll nii dama la bëggoon rey waaye duma la rey ndax kat man sama papa lu baax la doon def ba lu bon fekk ko fa duma bàyyi yow tamit ngay def lu baax lu bon du la ci fekk ndax man nii lu bon li may def nii yépp ndax fi sama papa jaar ak samay waajur fi ñu jaar dama dimbalee ma génnee la fi ci noonu nag la nit ki tàmbalee di gas prison bi muy gas di gas ci saa si benn bën bën bu mag daldi nekk foofu mu ne Ousseynou xaaral man ma génn après dinaa la tàllal loxo nga génn ci la génnee ci bën bën bi mu daldi di tàllal loxo Ousseynou mu xëcc Ousseynou Ousseynou daldi di génn mu daal teg Ousseynou ci kawam fi ñu génn fi nag ab ndox moo fa nekk kooku nekk teg Ousseynou ci kawam di feey di feey foofu Ousseynou mënoon feey ndax ka benn tànk la dese te loxoomam yépp ñu ngi dagg mu nekk di feey di feey luy nekk ay juróom-ñetti waxtu ba mu jéggi dex bi mu daldi teg Ousseynou ci kawam mu nekk di daw di daw di daw suba bëggul di jot ba ñu egg ci benn dëkk bi ñu eggee ci benn dëkk nag ci la wàccee Ousseynou mu ne ko Ousseynou yow mën nga dem nga dugg ci dëkk bi man nit ñi ñoom ñëpp léegi xàmme nañ ma dëkk yi yëpp a ma xam man sama place ca prison ba la man maa ngi dellu prison ba parce que xam naa ne nit ku bon laa bu ma fii gis nit ma koy rey te bëggatuma rey beneen nit ndax kat xam naa ne ñu baax am na yow nit ku baax nga Ousseynou na ko déedéet bul dem bul dem bul dem xam naa ne ku baax nga def nga lu bon waaye ñàkk xam rek moo tax fi Ousseynou di waxee loolu nit ki ci la nekkee di dal Ousseynou foofu amul tànk munu ko topp Ousseynou foofu la xoolee ci kanamam mu daldi gis dëkk ba mu nekk di raam di raam ba mu egg ci dëkk bi mu eggee kër bi mu njëkk a gis mu daldi gis buntu bi daldi ubbeeku mu daldi di fay dugg waaye bi mu duggee ndekete kër googu dafa am benn xaj xaj boobu ci la dawee jëm ca Ousseynou daal di mattaat beneen tànkam bi mu dese woon ba tànkam boobu tamit daal di dagg Ousseynou daal di yuuxu ci la benn màgget génnee ci benn néeg jëm ci moom gis ka dareet gi mu ngi sotteeku mu daldi xëcc Ousseynou dugal ko ci biir mu ne ko yow yaay kan Ousseynou daldi ko wax moom mooy kan paa boobu nag bi mu ko fajee ba pare mu ne ko dëkk bi mënoo fi nekk ndax nit ñi fi nekk baaxuñu te bu ñu xamee ne que yow ci prison bi nga jóge dañuy wax ne ka nga delluwaat lu gën bu subaa ma boole lak sama doom bu góor mu daldi lay yóbbu seen dëkk ci la ko Ousseynou ne wee man di dëkk ñoom Assane laa bëgg a dem paa bi laaj ko dëkk boobu ban dëkk la Ousseynou wax ko tur bi mu ne ko foofu pour dem fa lu mu tuuti tuuti dina jël ñetti semaine waaye dinaa wax sama doom bu góor bu subaa mu yóbbu la Ousseynou nag ndeysaan guddi boobu métit bi mu nekkee woon ñaari tànkam yépp dagg na loxo mi dagg na waaye bu mu xalaatee que mën na dem ci dëkk xaritam bii di Assane mu daldi di kontaan yàkkamti bërsët jot bi bërsët jotee ci la ko paa bi booleeg doomam bu góor kooku war ci fasam teg ko ci kanamam ñu daldi tegu ci yoon ñu daw luy mën ñetti semaine ci lañu ñu daal di egg bi ñu dee eggee nag ba seen dëkk bi ci la ko xale bu góor bi newee man fii laa lay wàcce ndax kat sama papa ab màgget la bàyyi naa ko luy mot ñetti semaine ci kër ga te léegi wóorul ma koy bàyyi moom kese ndax kat man maa koy jàppale buy lekk buy naan ak lu bari lu muy def te moom kese la dama lay wàcce fii xam naa xale yi fii lañuy nekk di foo te waa dëkk bi tamit dañuy doxantu bu ñu la gisee dinañ la yóbbu ci dëkk bi kooku ci la wàccee Ousseynou foofu daldi waraat ci fasam daldi dellu seen dëkk Ousseynou nag bi mu wàcce foofu amatul tànk mënatul raam léegi ci biiram bi lay raame biir bi lay teg ci suuf si di bërëngu pour mu mun a déplacé ci la nekkee di bërëngu ak biir bi di bërëngu di bërëngu ba mu seen ay xale di foo mu gaawantu jëm ci xale yi bi mu demee ba egg xale yi biñ ko seenee ñu nekk di reetaan ñu ne xool leen kii nu mu mel xool leen nit kii nu mu ñaawe xool leen màgget bi Ousseynou nag moom ak métit bu mu mujjee nekk fan yi jàll dafa dem ba mel ni màgget bu am quatre vingt jeex ba nga xam ni ay yax rekk ngay gis yaram bi yépp daggatoo amatul ay tànk loxoom yi ñu ngi dagg yaram bi mu ngi jeex mu nekkaat beneen nit foofu kenn mënatu ko xàmme xale yi nekk di ko reetaan ci la benn xale jëme ci moom dal di jël xeer dal di ko koy sànni ci bopp yeneen xale yi nekk di ko reetaan Ousseynou foofu jaaxle na mu ni woo xale yi mu leen di ne man la Ousseynou xaritu seen buur Assane man la Ousseynou waaye xale yi faale wuñ ko ci noonu nag la Ousseynou xool ci kanamam mu daal di gis benn xale kese toog ci booram nekkul di foow ak yeneen xale yi Ousseynou di bërëngu di bërëngu di bërëngu ba jëm ca xale boobu waaye bu mu demee ba jege xale boobu moom it mu daal di tiit nekk xale bu ñaaw bëtam yi mu ngi am benn bët bu ndaw ak benn bu mag mag bopp bi mu ngi déformé moom it amul ay tànk ndekete xale boobu ab handicapé la moo tax xale dëkk bi ñoom duñu foow ak moom moom booram rek lay toog Ousseynou ñëw nuyu xale boobu ne ko man de ab gan laa fi xale bi daldi koy ne soo nangoo nekk sama xarit man de dinaa la dalal ndax man ow ma benn xarit Ousseynou ne ko man kay dinaa nekk sa xarit ci la xale bi yuuxoo yaayam daldi di ñëw laaj ko lu xew mu ne ko yaay am naa xarit ci la yaay ji ñëw nuyanteeg Ousseynou daal di ko yóbbu seen kër biñ ko yóbbee seen kër ñu daldi koy jox mu lekk mu naan ñu sangu ko toppatoo ko ci la yaayu xale bi nag ñëwee ne ko man desoo fi nekkee dina nekk lu ma neex ndax sama doom bi bu mu juddoo ba tey xale yi dañoo ne dañ ko ragal ki amul kenn ku muy foowal du dem école du dem fenn moom rekk mooy toog ci booram yow xam naa ne gan nga fi waaye su la neexee mën nga des ci sama kër nga nekk ak sama doom di ko wéttali ci la ko Ousseynou man la Ousseynou bi dimbale seen buur bi mu waxee loolu yaay ji tiit ne boobu wax nañ ma ne mu mel nee nañu kooku moo dàq jigéen kooku ku rafet la waaye yow màgget nga ci la ko Ousseynou waxee li mujj xew ci ginnaaw yaay ji daldi jooy ne ko bu sooba yàlla man bu subaa dinaa la yóbbu ca pale ba Ousseynou nag guddi boobu yépp nelawul mu ngi yàkkamti gis kii di xaritam bii di Assane bërsëg jot ba mu dem ca xaritam ba bi bërsëg jotee nag kooku daldi téye ci loxo Ousseynou nekk di ko diri mu ànd ak doomam bi ba ñu egg ca pale ba ci buntu pale ba nag luy mot téeméeri soldaat ñu ngi fa taxaw ñooñu noo leen loo leen fiy def yaayu xale boobu ne leen kii de mooy Ousseynou bi dimbale woon suñu buur bii di Assane moom moo fi ñëw tey di ko seetsi si la soldaat yi nekk di reetaan ñu ne ko yow danga am sa doom bi nga xam ne kenn bugg nga daldi jël sa nit ki nga xam ne kenn xamul fu mu jóge ci àdduna bi mu ngi ñaaw ba kenn xamul ñaawaayam fu mu toll ngay ne que kooku moom mooy Ousseynou bi nga xam ne moom moo gën a rafet gën a baax ci àdduna bi yow dag ñu yàpp ci la benn soldat daal di benn armam bi mu yore woon muy benn fit mu daldi koy dóor ndaw soosu bi mu koy dóor ndaw soosu nag ndeysaan Ousseynou ak baax bi mu baax ci la daldi di tëbee jëm ca ndaw soosu daldi koy prothèse fitt boobu daal jaar ci wetu bët Ousseynou Ousseynou nag métit boobu lu mu mettee mu daal yuuxu yuuxu boobu fu munta nit fu mu munta toll mu daldi koy dégg Assane nag fu mu toogee ci Sezam di war tanak u sedu vi muge yuhu bobu mome txila yuhu mudal di danu. Us seu xaretam. Dal di yuhu wo soldati, mu ne le yo buen kuôpital, yo buen kuôpital a sam Danu. Fi mu newe yo buen ku oppital, Prizonnyeetame di nek kontibiti. ñoom dégg nañu yóbbu leen ko hôpital xamul nañu ndeke Assane dafa daanu moom it ci biir ñu daldi jël nit kooku ñu defe ne que kooku la ñuy ne nañu yóbbu hôpital ñoom it ñu daldi di koy jël yóbbu ko ci biir ci noonu lañu ñu jëlee Assane ñu daldi koy yóbbu ci biir hôpital bi ñu jëlaat Ousseynou bi nga xam ne moom moo doon xaritam ñu yóbbu ko ci hôpital bi asam bi mu yeewoo mu daldi xool gis nit kiy tëdd ci wetam mu nekk di jooy ñu ne ko asan lu xew asan lu xew foofu Ousseynou moom bu baax mu ngi tëdd xëm ñu ngi koy faj xamuñu moom mooy kan ci la leen asan newee kii mooy Ousseynou bu baax Ousseynou doomu buur bi ne ko looy wax nii Ousseynou tey melul nii ab màgget la bi déggee yuuxu yooyu ci laa fàttalikoo li ma ca livre ba Ousseynou ko ne ko lan ban livre mu ne ko livre bi ñu nekkee woon ci bibliothèque bi man bi ma liiree livre bi ba pare dama fàtte woon lépp waaye bi ma déggee nit ki yuuxu ci laa fàttaliku li amoon ca livre ba livre boobu li ma doon gis mooy que yow mi nekk sama seex nga daldi dem ci dëkk boobu nit ki toppatoo la defal la lu ne lépp bépp bànneex bi ma fa doon am yow ñu la koy defal ma kontaan ci ba nekk di reetaan reetaan yi ma doon reetaan waaye yow bi nga ñibbee ma gis tamit que nit kooku la doon toppatoo ñu nekk di ko def lu metti ba mu dem ca prison bi ba jinax yi di ko màtt ba xale yi di ko dóor ba fitt bi di ko dal loolu moo taxoon may jooy ba foofu yépp tooy nit kooku nekkoon foofu moo mujj nekkaat nit bi ndeysaan ci la Assane fàttalikoo li mu liiroon ca livre ba bi mu waxee loolu ba pare nag ci la Ousseynou bu baax daldi di ximmalikoo daal koy ne Assane sama xarit Assane ak Ousseynou yépp daldi di daw jëm ci kawam daldi koy teg seen dënn ñu daldi di jooy ci noonu nag la useynu ak Assane newee nañu ko yóbbu ci hôpital bu gëna mag ci dëkk yi ñu faj ko ci faj bu gën a baax ñu delloo ko ay cëram yépp ci noonu luy mot ñetti weer ñu nekk di faj kii di Ousseynou bu baax ñu defaraatal ko cëram yépp yi mu yore woon ba mu mel nu mu melat toon bi mu génnee foofu Assane daldi koy ne man dama lay may jabar mooy sama rakk bi des fii ci lañu jële rakkam bii ñu daldi koy may useynu bu baax Ousseynou tamit daal di koy ne yow mbaax bi nga baax man buur dootuma ko nekkati ci dëkk bi su sooba yàlla yow yaa may wuutu yaay wuutu sama seex bi ñu jaal di jël seen nguuru dëkk bi teg ko ci loxo Ousseynou bu baax waaye ndeysaan Ousseynou bu baax bi mu kiwee mu ne leen man dama bëgg xam sama dëkk bi mu bi ma nekkoon fan la buur bi mujje ci lañu ñu reetaan ñu ne buur boobu ngay wax bi nga demee moom dafa rëccu li fa xew bi mu xummalikoo ci la ñëwee fii suñu dëkk mu lacce ndax yaa ngi fi pour mu baalu la léegi mu ngi fii moom fii la dëkk léegi ak ñun mu ne leen ana féticheur bi mu ne ñu ne ko même féticheur bi bi nga demee ba prison bi moom it dafa rëccu li nga defoon mu dem ba foofu ñu ne ko yow réer nga moom da doon defe ne saka dañ la rey ba pare ci la leen Ousseynou bu baax wax waaye man li ma bëgg mooy prisonnier bi ma fekkoon ci kii bi dem leen ngeen indil ma ko fii ci lañu demee indi ji prisonnier bi Ousseynou fekkoon ci prison bi mooy ki ko sobe ki mu ne leen nguur bi ngeen ma jox kii laa koy jox ndax kat moom papaam ak yaayam lu baax lañ doon def moo tax àdduna bi lu baax lañ ko war a fay man jël naa lépp tegaat ko ci loxo prisonnier boobu moo mujj nekkaat buuru dëkk bi moom it mu daldi jël xale bi nga xam ne moo dimbali Ousseynou mu ne ko moom it lu baax la def mook yaayam moom it mooy nekk sama premier ministre saa yu magee xale boobu xale yi nga xam ne dëkk bi yépp moom la gënoon bañ moom la gënoon tuutel moom lañ doon gëna sonal mu nekkaat xale bi nga xam ne xale yépp moom lañu bëggaat nekk ni moom mujjantal bi xale yi dañ doon jël seen bët di jël bi taf ko beneen bi ñuy ko pour nuroog moom ci noonu nag la seen dëkk bi nekkaat dëkk bu gën a neex ci àdduna bi Ousseynou ak Assane ak seeni xarit ak seeni jabar dëkk fa ñu dund dund bu neex dund ba am ay sët caabi taab bi na aljanna ku ko njëkk foon yàlla na nga dem aljanna